amin yaa bi ginnaaw ci waxtu wax yooyu rek maam Maxtaar tey nga xamante ne moom moo di vidéo yi nga xam ne ñun ñëpp teg nañ ci seeni bët suñuy bët muy li nga xamante ne am na ca cité Mixta nekk ay xale yoo xamante ne mën nañ ne tey ay mineur lañu parce que koo ci xool joxu la âge dix huit ans ñu gis leen tey ñuy def doxalin bu doy waar ñeel wàllum sexité yëpp tey ñu bëggoon a xam un peu rek maam Maxtaar naka la jàng jàngatee loolu. doone nag dama am sama compte Snapchat dama am sama compte Facebook dama Mm-hmm. dana def xaweeku def naka su dul noonu ndax li nga junj léegi. Mm-hmm. te mu lëmbee rew mi. Mm-hmm. ñu takkaar naa ci réseaux sociaux yi ay xale yoo xam ne. gën caa bari ku ci gën a âgé xëy na seize ans dix sept ans la maanaam ay mineur lañu. ay mineur lañu. def xam ne moo raw futteeku parce que dañu jë dañ koy jëfe ñoom directement. li ñaari way dencante di jëfe ci seen biir chambre à coucher ca anam boo xam ne. dégg nga ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad hmm. ñoom ñu ngi def njaaloo boobu directement ci penc bi hmm. tooñ la hmm. parce que penc yi du privé dëgg boo tëjoo lu la neex def bu yeboo nga daje fa ak iblis bu yeboo nga convoqué surtout firaw na njaaloog moom yoonu kenn new ci mais dès l'instant ñëw nga ca penc ma votre liberté s'arrête là où commence celle des autres ñii nag dañu dañu jalgati loolu yëpp daal agressé les gens dans leur sensibilité. Mm-hmm. dal di toroxal orma yu rafet yi nga xam ne mooy mandarga wu Sénégal. def de l' sexuel. Mm-hmm. def de la pornographie ci ay xale yu tuuti. Mm-hmm. alors loolu waral nag dégg naa ni. brigade des mœurs jóg na ci. dëgg la. maa koy gërëm parce que ndaw si xam naa ko baax muy euh, commissaire Florence Mendy. di ku yaatu dënn bëggal mm-hmm. xale yi lu baax mm-hmm. te bokk benn position ak jàmm maanaam kenn amul droit mais danaa yàqu ba noppi yàqaale doomu jàmm mm-hmm. waaw moom position boobu la moo tax fu ñu toll ñu ngi koy ñaan alors euh, gëm naa ne nag moom en partenariat avec la brigade de cybercriminalité bi nga xam ne ñoo ŋànk mbir mi waaw gëm naa ne dinañ ko topp dinañ ko topp sax comme ni nga ko waxee état du Sénégal ak ëttu attekaay bi ñoom dinañ ci def liggéey bi nga xamante ne moom lañ ci war a def mais moom Makhtar Gueye tey ONG Jamra ku ko xam xam ne tey dafay xeex lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay acte contre yoo xamante ni ñu ko fii amal dañuy gis Jamra jug taxaw di ci wax tey ñu daal di gis li nga xamante ni moom moo di pornographie pure et dure ci ay xale yoo xamante ni seeni âge maturagul maanaam amaguñu âge majorité boo xamante ni mën nañ ne dépassé nañ les dix huit ans ñu dem defee ko ci benn bërëb boo xamante ni ñu ngi wax naan cité mixta la xewee te lu ni mel nekkul ni lu njëkk la fii ci réewum Sénégal cité mixta ñu koy tudd ci anam yu ni mel wala ci doxalin yu ni mel gisuloo ni bërëb boobee yell nañu daal di koy xoolaat ci ni muy fonctionner. waaw xam nga bërëb yooyu état bi réglementé na ko ba noppi parce que y a des ne ñoom le locaux yi nga xam ni seeni i borom dañ koy mettre sous location euh, ni ko état réglementé nag lu simple mhm. ñëw ne dama bëgg a louer bërëb damay def séminaire wala damay def ak lu mën ci lay mhm. le minimum et la première des précautions mooy dañ koy laaj ay kayit moo xam carte d'identité la wala passeport wala leneen boo gisee ne majeur la nga daal di waxaale moom jox ko prix bi mu bëgg bi bi ngeen bi ngeen d' accord bu dee une heure la nag dañ koy naan demal boo uti mm-hmm. sa benn mbokk wala sa papa wala sa yaay voilà ñu ñu confirmer ma ne ñoom ñoo la jox waaye yooyu ñoom ñu ci bari mm-hmm. nga xam ne ils sont attirés par euh, euh, l'appât du gain mm-hmm. yooyu yëpp dañ ko teg fële boo nekkoon liir bu tooy xepp tamit mën a raam ba foofu li leen amal solo mooy na nga yëkkati xaalis jox leen ñu luwee la loo bëgg soirée privée yi ñuy doon wax léegi yamatul ci adulte yi enfant mineur yi léegi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko itteewoo léegi parce que scandale boobu am ci mixta mhm. privé la mhm. li ci gën a bon ñaari mbir yu bon moo ci am d'abord ay mineur lañu ñaare ba ñu ko paree li ñuy def seen lu mbon wëlbatiku baaloo yàlla ak ndax ñu ko def bésu ay el fitre mhm. bés bi ñuy màggale fi weer wi tedd yu jeexee muy jouru koor yi jouru koor yi ba léegi ñu yem ci loolu waaye ñu fab seen njaaloo filmé ko ñu ko bàcc ci réseaux sociaux yi nga tey tooñ mënul weesu loolu réseaux sociaux yi seen bàyyi moomu ko seen yaay moomu ko mhm. dox daje la c'est un grand carrefour wax naa ko sànq moo moo nekk les penc moderne ya amoon suñu jamono maam ya mhm. nga xam ne yow doo dem di uti information bu bon mhm. déedéet waaye booy défilé di surfer sur le fil d'actualité ne jaxarat sa kanam c'est de l'agression c'est de la provocation alors loola waral nag. Mhm. ñu ngi brigade de mœurs ak brigade mhm. mhm. parce que euh, euh, ak man ñii di wax ak yow. yar suñuy njaboot ci suñuy biir suñu kattan yem. waaye mbedd yow lay xew ci mbedd ma yow mënoo ko gérer. déedéet man mi tam naka noonu. kon ñun ñu ngi góorgóorlu ci kër waaye ñu ngi état bi dañuy gérer mbedd bi. dëgg la. alors ba tax na kon euh, gëm nañu ne. Mhm. Euh, ndaw si jàmbaar ji ma la doon wax tey jiite brigade des mœurs euh, Florence Mendy ndax ba mu fa ba léegi. Mhm. ay elle a de très bons résultats. Mhm. depuis lesbiennes ya nga xam ne defoon nañu scandale fii ki par piano piano Jamra porté woon plainte moom moo jëloon dossier bi en main te gis nañu résultats yi. alors moom ak jokko bi mu jokkoo avec la cybercriminalité gëm nañu. dinañu dàkkal définitivement. agression yi ñuy def di tooñ dem filmer seen pornographie ñoom nekkoon bàcc ci réseaux sociaux yi. Mhm. Euh, di tooñ koo xam ne demut. tey voilà loolu daal la ñuy ñaan bu ko defee nag yàlla mën ñëw dimbali. dëgg la ndax yar gi mën a rek. ñu gis ne à chaque fois moo ngi jóg di xeex ci lu mel noonu tey lu mel nii am ONG Jamra ban tànk la ci fas yéenee taxawee. waaw kon ngeen fi mu nekk nii euh, comme que man sama wàll boobu am na ay kii bi ma wax ak police. Mm-hmm. waaye dafa nekk un sujet très délicat. Mm-hmm. Euh, ba tax na ñu itam euh, nous avons l'habitude di s'amonter avec euh, le le devoir de réserve. des mm-hmm. officiers de police. voilà moo tax nag ñoom am na lu ñu waaw su boobaa tous les éléments du ñàkk incha allah jam ci jam daal ci at ci anam boo xam ne moo gën a complet allah mais en attendant. ñu ngi di gërëm ñoom brigade de di gërëm brigade de cybercriminalité nañ ñu dimbali leeral mbir bi buñ ko leeral ak yem si dañu fexe dakkal mhm. agression électronique yi ñuy def mhm. di foog des images pornographiques gisuloo ni li ni mel bu fekkonte ni jël nañ ci ay mesures yu sévères ku ko def ñu daal di lay daan ay at boo xamante ni da nga koy tëdd wala tamit ñu daal di yëkki ab xaalis bu weex tàll boo xamante ni da nga koy fay ngir nga mën a delluwaat ci say mbokk gisuloo ni sanction yi moo u moo waral à chaque fois lii ñu di ko répété non non sanction yaa ngi parce que boo ko fàttalikoo yaa l'article euh, trois cent dix-huit du code pénal euh, ak beneen bi dem moom ñi nga xam ne dafay teg ay daan mhm. nga xam ne dañ leen tuumaal ci wàllu euh, mu tuddee ci euh, attentat public open mos or public mhm. parce que kenn duggul ci vie privée wu kenn lu waaye def sa biir nekk yoonu kenn new ci mais dès l'instant filmé ko génne ko ci réseaux sociaux yi mu ci YouTube WhatsApp mhm. Snapchat Instagram et c'est-à-dire mooy mooy ñi ñu geste yu bon lu bon. Mhm. waaye mu neex leen mu nax leen di ngeen ko ne baax bàcc xool. d'accord alors kooku code pénal article trois cent dix huit ak beneen bi jàppatuma numéro bi. punir nañu l'attentat public au bon mœurs. punir nañu également euh, la pudeur. voilà alors kon yooyu am na ay daan yu ñu ci teg. Mhm. ci wàllu euh, amende daan yu ñu ci teg ci privative de liberté. législation mooy appliqué te ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi koy appliqué parce que boo ko fàttali ko dama koy bañ a tudd rek parce que passé na ba noppi chanteuse euh, boobu defoon de l'exhibitionnisme mm-hmm. fii ci show Orsayeur bu stade euh, Iba Mar mm-hmm. ba Jamra ak le comité de défense des valeurs morales bu sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Fall ak Adam bu porté woon plainte tegoon na ko loxo la waaye il a des interventions artistes yi et cetera dañu mm-hmm. mujj dem retirer kon la loi elle est Mhm. il ne demande qu'à être appliqué kon nag lii xew mixta mhm. ah dëgg la yaa la brigade mu ngi ci yaa la cybercriminalité mu ngi ci mais je suis du mën a ñàkk la brigade des mineurs dugg mhm. voilà bu ko defee nag ñu jéem a seet mi ñuy def ba dakkal ko mu bañati am dëgg la voilà kon nag ñu ngi am yaakaar ne daal euh, cette fois-ci ils vont frapper très fort pour que mu servir ko ci bëgg a def itam di nga xoolaat sa bopp. nga xalaat lu ni mel. Senclic gul abonné leen gaaw activé notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.